Mamboy boo gagné élection présidentielle bi quel va être le sort de Ousmane Sonko ko nga koy génne. su ma gagné man élection présidentielle ma première mesure. Hmm. ma première mesure c' est d' appeler à une à une de jeunesse. non ma loolu boo gagné élection présidentielle la situation de de l' opposant Ousmane Sonko. ci mun loo ciy décidé donc ñaata yoon nga ma dégg may wax réconciliation nationale. pourquoi les Sénégalais doivent se faire face. mais loo ciy def. mais il faut qu'on réconcilie les Sénégalais. non loo ciy def la. réconcilier les Sénégalais comment. mais comment xam nga réconciliation tu sais man xam nga y a que tout ça en Afrique du Sud voilà. waaw Nelson Mandela sa seule prouesse est d'avoir réconcilié les Sénégalais. da ngay remettre les pendules à. il faut qu'on réconcilie les Sénégalais les Sénégalais ne peuvent pas waruñu mun continuer di nekk ay noonu war nañ mun wujjee ci politique ku ne di wuti. donc pour a la tension. tu vas créer les conditions pour que ñu libérer ko. non xam nga loolu xam nga business gars yi li ñu doon wut comme démb ci émission bi xam nga démb la woon xam keroog bi mm. wax. Mm. ñuy naan kon dafa am électorat bu muy viser. ce que je vais faire parce que non bu ma ko waxee. oui ils vont dire waaye ouais, il vise l'électorat de. mais waxal maam booy yow da ngay prôner je ne vise l'électorat de personne je suis en train de pour le Sénégal. d'accord mais qu'est-ce que tu vas faire boo ko seetloo. Moi, je parle de deux sujets qui son assez importants am mes yeux. C'est la confiance. D'accord La confiance, la elle est fondamentale. dafa am solo ci suñu diggante dégg nga et nag la réconciliation loolu dama bi ma koy wax du tey bi ma koy wax ba may def déclaration de candidature wax naa ko nee naa ne il faut qu'on réconcilie les Sénégalais comment nag xam nga commission vérité et réconciliation moo amoon Afrique du Sud voilà. Mm-hmm. fii aussi on peut trouver un mécanisme où ku nekk xam nañ tooñ gi nga tooñ. Mhm, ñu baal commencé ne politique moo eggloo woon nit ñi foofu parce que ku ne dina am comportement bu mu am. merci beaucoup. mais man duma mënuma ça sous-entend que. di nga créer les conditions pour que. Euh, ñu repartir de zéro xam nga lu tax. Hmm. parce que aujourd'hui aujourd'hui benn affaire na la wóor. Hmm. mooy y a des partis aujourd'hui quand au pouvoir du ñu xool. ndax waa ji def na wala deful ils vont se venger sur des des responsables de Benno mais loolu jëmalewul Sénégal kanam yaa ngi wax sooru Ousmane Sonko mais aussi loolu laa wax il faut que ñu xam ni perspective politique mënul tax ba ñu egg ay cas yi nga xam ne nit ki muy fal day naan il faut ma tëj diw non non non il faut que ñu egg benn niveau bu nga xam ne il faut que rassurer ñu rassurer xam nga boo gisee ñu bëri di ragal alternance ci seen réew yi mooy njiit bi bu foogee dañ koy tëj day bañ bañ joxe pouvoir bi donc les jeunesses africaines aujourd'hui elles applaudissent des coups d'état wala du foofu lañ toll. Mhm. coup d'état dafa am Burkina xale yi di tàccu. paradoxal. coup d'état am Niger ñuy tàccu. mais mooy lan mooy ils ont vomi les politiques ils n'ont pa vomi que le régime en place politiciens yëpp la ñuy vomi.